فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع initiateur grand prix international Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waaw xew-xewu tey bi li ko waral mooy day liggéey bu am solo bu ñu yëkkati ci alxuraan eh, ngir roy sëriñ tubaa suñu Serigne ci fonk gum ko fonkoon ak teral gum muy teral ñi nga xam ni ñooy yëngu ci alxuraanu karim wax ni it léppam alxuraan la ci la ngooy moom lay digal aw nitam ñu mooy ci ci lay gindee boppam di ci gind nit ñi wax ñaan boromam ni ko sama dund gépp dama bëgg mu nekk di doon kuy sponsorisé alxuraan mooy kuy jàppale ak di dimbale ku ci nekk waa wajaal bi jaahil muntaqa xayaati riayat alqurani dil ayati moom nag lu mu ñaan lu ne day am ndax la sëñ Modou Moustapha waxoon ni sëriñ Tuubaa de ay waxam ak i ñaanam maanaam waxam jum la wax la ma gisagut laa gën a gëm ci li ma gis moo tax nag ñun ñu bëgg a barkeelu bokk ci ña nga xam ne ñaan googu mu ñaan yàlla dundam yëpp doon sponsorisé alxuraan mooy di teral ñay jàng alxuraan rawatina dongay daara yi loolee lañ ñëw ngir barkeelu ci ne xam ne luy dëggu la ndax day dëggu dëggu gi mel ni yàlla suñ borom wax ji wax ni inna nahnu na dhikra wa inna lahu la xaafizun man maa wàcc alxuraan maa koy sàmm kon yii yëpp ca la bokk jëwriñam ja xaadimu rasul jëlaat loole taxaw ni moom jël na léppam def ko muy alquran mooy ndàmbam mooy léppam moo tax ñu ne tam ñu ñëw ngir bëgg a barkeelu ci moom ak liggéeyal ko te xam ni lépp looy def te teg ko ci moom ay ndigalam ak lam nekkoon yàlla suñu borom dala cee defal lu kawe sa njort li ko tax a jóg daal mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alquranu karim gi nga xam ne ñun ñëpp ci lañ nekk waaye nag bëgg caa sax ndax dafa defoon condition ci ni ku sax ci dima liggéeyal yàlla day faj say aajo te dama ñun ñëpp ak yéen ñi ñëw ñëpp dañoo bëgg seen aajo faju ndax dañ leen a yéene jàmm te xam nañu li ku koy liggéeyal ku ca laal ku ca ñëw ku ca wax ko ne dangay am ci teraanga jooju te moo waxoon ni waqdi xawaaij alladina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu ku gis sa jamono waa ñun de ñu ngi gis suñ bopp ci lépp lu lu baax tax a jóg ñun na yàlla dañoo dimbale dañoo bokk ci ñi nga xam ni Euh, dañ ñoo tere njàmbat ñun lépp la seen positif rek lañ cey gis ndax laa tukasiri shakwa fa kun mutajallidan xata tazunna naas annaka am dañ ñoo digal ni ñu bu leen di bëri ay njàmbat dee sant ba ku leen gis defe ni am ngeen lu ne ak dont yoru leen lépp ba tax na ko ñun euh, ñaareel bi ni ñu sëriñ Tuubaa yaree dañoo xaarut kenn ci leen ba tax na yenn difficulté yi mën nañ ko bañ a yëg wala buñ ko yëgoon sax rus nañ koo wax ba tax na daal ñu ngi sant yàlla ah, loolu it lu baax la loo xam ne wax dëgg yàlla ñun xam nañ ni bu sottee ca na ko sëriñ daare yi waxe ànd ko état bi ci na ko état bi waxee gëm nañu lu baax lu am njëriñ. mais xam ngeen yan xeetu programme ah bien sûr gis nañ ko gis nañ ko ndax am na ndaje yu bari yoo xam ne nii woote nañ ko ci te daan nañ ci bokk ah, ndax man damaa jute beneen kureel bu ñu wax AGEF muy association jàmm pour l'éducation et la formation gis nañ bu baax a baax a baax avancement yi ci am xëy na ay jamono am na ay réero ak ñàkk xam dëgg-dëgg li nga xam ni mooy mooy jubluwaay bi waaw te loolu fu mu am fu ne euh, teey rek a cay tegu ba kere ñuy xam lan moo xew waaw loolu la ndax euh, ki ñuy defal ak ki koy defal bu fekkee am na dara loo xam ni ñàkk nañ ko déggoo euh, ndax yéene nit fi ne mën nga ko yéene lu baax lu ne mais façon bi nga ko koy defalee mën naa tax moom mu du ko xam mu tax mu tekkeerlu ci ndax lem li muy neex neex bu ma ko doon yëkkatee jëmee sama loxo ci sa gémmiñ te jëluma ko leeral la ni la lii lem la euh, xëy mus ko baax na nangam nangam mu boobaa da ngay fël sama loxo bala nga ma wax dara moo tax ragal naa ne bu waxtaan wi continuer te it kuréel yu bari euh, te it gis nañ ni ouverture am na ci état bi fi nekk ñu ngi waxtaan ak ñooñu ñun loolu amuñ benn problème ci ni gisuñ ci benn jafe-jafe li ñuy ñaan mooy suñu borom subhanahu wa taala ñu dem ba ak déggoo am ci ndax njariñ li mën a baawaan ci Sénégal waaw bi bu doon tey dañ koy tënk ci li anglais yi wax all in one da ngay gis bu ñu lay jaay benn machine imprimante wala dara ni la all in one boo ko liiree mooy danga nga cee am imprimante am ci scanner am ci fax mooy dañ cee boole ñetti bii dañ cee boole ñetti euh, ñetti ñetti ñetti ñetti branche branche bu lan mokkal alquranul karim def science islamique man koo firi waaye boole ci yéen mokk alquran man ko tajwid mu ànd ak jàng mu rafet mu neex boo xam ni moom ëpp ci li concours yi ñu amal ci àdduna bi ak fii ci Sénégal waaye ñu dolli ci nag ñi nga xam ne tey mokkaluguñu alquranul karim te bëgg leen a soññ ñoom itam ñu ngi góorgóorlu am fukki hizib ñoom dañ leen caa boole moo tax ñetti mbir la boole kon all in one la maanaam ñett ci benn mel na fi ci daal benn saan daal nga rayéetu ci picc yu bëri loolu moo ko wutale yu bëri en même temps it dañ ko internationaliser parce que ki ñu ko tuddee moo mel noonu dafa universel ndax ay ñaanam ay léppam maanaam da koy jëmale ci ummatu muhammad xot ummatal moustapha an kulli mafsadatin wal tarxamil xalq yaa man jaddahum bada xot ummatal moustapha amma yajuru lahum siwal abadati wa asimhum min asharari kon xuma ummatal moustapha nag nekkuñu sénégal dong nekk nañ fépp ci àdduna bi waa kër yonente bi moo tax ñu ne kon ñun li ñuy defal sëriñ Tuubaa dañ ci woo àdduna bépp ku bëgg rek yaa ngi ci biir incha allah waaw loolu xëy na yéen da ngeen fekk jataayu njëkk yi waaye le 29 janvier ca kër Serigne Touba defoon nañ benn cérémonie de lancement ci la ñu waxee woon critères yi ci bokkee na xam nga tey li ñu doon def dañ doon yëgal waa Ndakaaru ak population yi fi nekk ngir ñu xam ni lii ko tàmbali na bu yàgg tey dem na ba sori na ndax fi mu ni ñuy wax ak yéen maanaam tey ñu ngi fi doon présenté comme ay candidat ñoom lañ ñoom lañ def première sélection ñoom ñooñu ñoom lañ war a ñoo war a nekk ñi kon ñi def ñi rawante ngir mën a xam kan mooy doon premier ak deuxième ak troisième ci lool lañ toll loolu nag euh, maanaam fekkoon nañu def tànn bi maanaam fekkoon nañu teg critères yi ki ci mën a bopp mooy lan bu dee ci farax bu njëkk bi mooy banqaas bu njëkk bi mooy ki mokkal alxuraan yaa cey mën a bopp waaye mokkal alxuraan rek du ca doy waaye da koy mën a tafsir boobu branche moom lañu ñu waxoon muy firi ko mën a mën a firi alxuraan boobu dañoo wax ni ka cay bokk it lu mu gàtt gàtt na am juróom-ñaari at ba fanweeri at waaye bu mu weesu fanweeri at bu dee bi topp muy mokkal alxuraan te mënoo koo tafsir moom it da am juróom-ñaari at waaye lu mu gàtt gàtt lu mu bari bari bu mu weesu ñaar fukki at bu dee bi ci des ci suuf nga xam ni ñi ma ko lëgoon la lu cay bokk ku ne da ngay am juróom-ñaari at waaye bu mu weesu moom itam ñaar fukki at nga xam ni ñaar yooyu ñoo toll loolu nag alhamdulilah am nañ 35 candidats ginnaaw sélection nationale bi ak bi am nañ ndax bu jëlee nationale bi sax lañ la xool tey ndax internationale bi am na ñaari pays yu ñu ciblé yoo xam ni incha allah dañ ci bokk. kenn gi sax yónnee na candidature muy Mauritanie léegi boo boobaa nag maanaam ñooñu ci jot bokk nag 35 lañ 35 yooyu nag incha allahu taala ñoom lañ fas yéene bu ñu duggee ci weeru safar wala bala ñu caa dugg ñu defal leen taqale leen ci ci quart de finale demi finale finale ba xam ni ñii ñoo jël yaayoo mbir mi ñu woo leen nag ci bis bu mag woo adduna ca Touba bi nga xam ni maam sëñ Tuubaa mi ñu koy defal ak ci ndigal sëñ Muntaxa foofu lañ koy defee concours bi li ñu doon def tey dañ koo génnee rek waaye concours bi Tuubaa la juddoo fa la dëkk moom laa lay wax ni la Euh, exactement lu génn weeru safar ndax keroog bu ñu ko wax sëriñ dañ ñu ko bu ñu defee lépp ba nga xam ni euh, final bee ci def dañ ko indi ci weeru safar léegi nag dañuy xalaat ci début safar premier cinq jours yi ci lañ koy xalaat wala euh, quatrième jour ba rabbi en safar daal moom lañ gën a jàpp mais nag ginnaaw bu ñu génnee ci lii balaa yàgg dañ def comme état bi ñu ko doon def rek fu ñu toll dañ koy communiquer nit ñi étape bi ñëw incha allah mooy ñu leeral ban bis lay doon ak kañ lay doon ak kañ lañ phase finale bi quinze personnes lay doon ndax groupe yëpp nekk nii dañ leen di rotal par cinq ci demi demi final quart de finale bu ñu demee nag ba nga xam ne cinq ci euh, quinze ba yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ci branche bu ne cinq fay euh, jongante nga xam ni cinq cinq premier ñoo dañu leen kenn ku ci ne incha allahu taala dañu def neexal boo xam ni ragal naa ni ku ne dana bëgg a jàngi alquran ku ne dana bëgg ci kaw waaw loolu dafa am bu njëkk biñ koy door a tàmbali estimé woon nañ di wax ay 5 millions di def affaire yu mais nag ginnaaw bi lañ gis ni maanaam ni ko nit ñi jëlee ak Sëñ Tuubaa mi ñu ko tuddee taxawaay bi mu ci def ak li mu def ci xoli nit ñi maanaam xamaguñ fan lay yem dañoo bëgg nu mbir mi xaalis bi bare ñu teralee noonu doom waaw xam nga lu baax moom doo wax ni dama koy tëj mais daal yéene ji mooy xam nga ni ngay wooyee nii Sénégal daal nañ wuy ji bii yoon nag Touba woote duñ duñ dàq dara ndax euh, li nga xam ne mooy relation lu war a nekk ci diggante jullit ñi fuñ mën a nekk la ko tàmbalee ca penku ba ci sowu ba loolu dafa war a dox te kii fi nekkal sëñ Touba yi muy sëñ Mountakha noonu lañ gis ci moom ndax gis nañ ñëpp di ko demal fépp waaw ay kilifa lay yebal ñu ngay dem ba fu ne ci àdduna bi ngir lan di di wuyu ay woote yoo xam ne dañ cey woo sëñ Mountakha ñoom ñu di ko ci représenté léegi nag ñun dañoo moomu suñu bopp moomuñu concours concours bi murid yee moom te murid yi sëñ Mountakha mooy seen sëriñ luñ ci egg lu ne lu ci bi digle rek ñu def moom man naa président bi lañ ma tuddee suñ président dana nag mooy suñ xabaar man xalaat bi nag ak yaxal gi ak yëpp ci suñ xel la génne kenn ci donge sëñ Tuubaa yu xew yi waaye nag man moomu ko xalaat dong laa ci am yëfi sëñ Tuubaa la dem nañ ba ci ku fi nekkal sëñ Tuubaa ñu xamal ne ko lii sa mbir la buñ ci amatul ndigal la duñ ko def waaw tey it bu ñu yoon taxaw la ñu taxaw liñ fa daje yéen bu ñu ko laaj ñu jox ko incha allah bismillahi rahmani rahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin fa amman